deuxième partie jàkkaarloo bi ñu am mbégte ànd ceek euh, El Malick euh, Ndiaye moom mooy secretaire national euh, communication bu parti PASTEF les patriotes sëñ bi ñu ngi lay dalal gannaaw booba jóge ci waawan alaaji Malick ñëw ci plateau bi ay ngëneel la rek ñu am mbégte depuis Diomaye fay je pense kon n'a pas eu le plaisir de recevoir quelqu'un de votre parti El Malick ñu ngi lay dalal jàmm jërëjëf Abdoulaye. Mhm. maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégalais yëpp. Mhm. di ci jiital nag waa Daara Jolof bi nga xam ne fa bokk. Mhm. Euh, di nuyu tamit euh, waa Tiwaawan yëpp. ak mboolem kilifa diine yi. rawatina nag sëñ Baye si Abdou bi nga xam ne ginnaaw samay waajur mooy sama niitukaay. Euh, di rafetlu trop invitation bi. donc di wax ni xëy na depuis ci Bassirou Diomaye Faye lañ ci mujj. waaye. yàlla tudd na ko tey incha allah ñëw nañ fi pour waxtaan ak yéen. jërëjëf ñu am ci mbégte lool alors waykat bi nee na làmb ji fi amoon daw verdict bi la ñuy xaar ba tey alors 94 milliards yi Me El Hadji Diouf verdict bi la ñuy xaar ba léegi te da nga relancer affaire bi ak film boo dawal euh, deux jours ci ginnaaw su ma jumul ou trois jours. Mm-hmm. donc euh, finalement euh, affaire bi ñun commission d'enquête parlementaire am na mais coow li des fi ba léegi mais finalement luy pexe. kenn rek mu mën a leeral mbir mi. dafa lànk ki ci ñaate ci ñaam xam-xam yëpp ci accusé war na joxe ay firndeem loolu la ñuy laaj avant nga laaj verdict da ngay laaj ndax parce que procès pour mu am xanaa balaa verdict di am xanaa dina am ay élément bu ñu sukkandiku pour juger ki wax li dara amu ci il est incapable nii affaire baa ngi nii ki man ma jàngoon de sama njàng mu néew tuuti ci déontologie journaliste ñu ne journaliste il doit vérifier l'information avant de la publier mais il n'est de divulguer la source loolu laa jàng naa ko de ñu ne ñu ne journaliste bala muy génne benn xibaar bu ñu ko jox war na mën a dem seet ko ka ko ko wax jox ko firnde yi mais moom du wax mën na bañ a wax kan moo ko ko wax mais am na firnde yi ba téye ko amul benn journaliste Sénégal yéen ak seeni morom ñi nag ak ñi wax ñi wax quatre-vingt-quatorze milliards tudd doomu jàmbur jëkkëru jàmbur doomu jàmbur bàyyi jàmbur muy Mamour Diallo te kenn mënul taxaw ci journaliste ni jox nañ ko firnde bi wane ni moom am na firnde ni gis na fu 46 milliards jaar waxuma sa 94 milliards ndax sa day wax waxeet hmm. tey mu nekk 94 suba mu nekk 46 baal nañ ko ko sax ndax xam nañ ko mais 80 mais 46 milliards yooyu hmm. taxaw na ci place l'Obélisque ni xam naa fi mu dugg xam naa compte xam naa nangam ga yu ko tàcc rek ma waatal leen fii keroog sama conférence de presse ñu leen billaahi wallaahi taalaahi du mas a génne benn preuve muy virement muy compte bu dugg xam nga lu tax pour plusieurs raisons dafa bëgg Sénégalais yéen ñu may seetaan ngeen bañ a nangu ñu di leen nax dégg naa ñu bëri pour déplacer problème ñu naan plainte waaw ki ñu tooñ est-ce que force la pour bu porter plainte d'abord xam nga mën na baale comme mën na banaliser mais li logique woon maître oui mais li logique woon mooy mu dem ci lañu après tamit pare ma leen bëgg a wax mhm. ki ñu tooñ ki ñu sosal wala ki ñu sàcc xaalisam mhm. wala ki jël gazam biir këram wala ki ñëw tegg benn appareil këram bu ko neexee mu porte plainte bu ko neexul du porte plainte mais sàcc am na mais par contre ki naan nañ ma porte plainte ma joxe samay firnde kooku kan la yàpp moom journaliste la yàpp ndax ñoom ñooy relais ñoom service de relais te mosu leen jox benn benn firnde hmm. bi ci des Ablaye moom xam ne député la am na fu ñu jaar pour porter ko mu tey ko mel ni du député di dof doflu deuxièmement xëy na xam na xamul na xaw ma lu xam mais commission d'enquête parlementaire bu bu amee justice amul droit def dara day toog déglu hmm. mais loolu aussi dañ ko expliquer Sénégalais yi. maanaam maa ngi nekk prêt boobu ba léegi de. te xam ngeen depuis ñu commencé avant élection yi ba léegi depuis janvier ba léegi la commission d'enquête bi commencé woon. ba naa man du ma wujji aw ma seen jot. am na wala amul dañ maa bëgg a tere ba campagne am na wala amul léegi boobu ba léegi mën na ay weeri weeri weeri weer commission bi pare na liggéey mais plénière ba war a entériner xam ngeen ne plénière commission ba pare day jébbal liggéey bi plénière. Moussa di nga xam ne day porter plainte parce que commission bi dafa teel a wax dafa dafa doon bàyyi ba plénière wax te amu ci droit moo ko nga loolu sax hmm. loolu day wane ni liggéey bi pareegul te tant assemblée pareegul mënuloo déposer plainte parce que procureur dañ ko tënk muy nekk liggéeyu assemblée hmm. waaye mag ngi ñaan man danaa déposer plainte bu plénière bi pare ñu xam justice am na droit. donc après plénière bi vous portez plainte. wax naa ko sama xaaral ma dugg may déglu mais dama bëgg kañ mu nga waxaat ko fii dama ko def dama def trois conférences de mm-hmm. <laughs> ma doon déglu. ma ni damay nekk rek plénière bi bi jot a wax mooy gisuñ dara la Sowaay def xam naa ne maamu dafa dara ndax kenn mënu génne benn këyit virement wu pour maamu. pourquoi que maamu dajul xaalis. état bi buy indemniser du impôt moo lay fay wala domaine état buy fay kay trésor mooy fay te budget boobu budgétisé wuñ ko ba léegi amul budget fu ñu watee 94 milliards wala 46 milliards état bi du tëb a tëb a génne xaalis di fay nii. Hmm. mais loolu Sénégalais yi bëri aussi bu ñu ko xam ndax jànguñu ko xamuñu ne trésor ak impôt du benn impôt mooy dem collecté waaye bu ñu fay trésor mooy fay xam nga impôt du fay état bi ku muy ne bu jëlee sa suuf. domaine de préparer document yi ni suuf sàngam ñee ko moom ñooy defar techniquement ñooy liggéey dossier bi mais bu ñu waree jox ndàmpaay payeur mooy fay trésorier mooy fay. léegi nag damay damay dégg ay wax yu bëri ti buñ koy wax ñoo ko tey dañu bëgg orienter débat bi naan waaw pourquoi waajee porte plainte expliqué laa leen li tax plainte bi déposé guñ ko. mais pourquoi du ñu waaj li gën a simple kay nag Charles la. voilà li gën a simple yow mi euh, Abdoulaye Dieng mu jot joxe preuve bi. baa ngi ñu laaj loolu yombul léegi léegi kañ. ñëpp ñëpp am jàmm maître léegi euh, alaaji Malick a ngi nii toog Ndiaye maître nee na li gënoon yomb tamit mooy ngeen génne firnde yi nee na boobu ba léegi wax rek ne firnde feeñagul ndax lu firnde la. jërëjëf Abdoulaye. Mhm. Euh, man mën naa commencer juste par poser question. Mhm. kan moo kan moo déposé plainte. président Ousmane Sonko fan au niveau du procureur kan moo def lettre de dénonciation président Ousmane Sonko fan au niveau de l'IGE kan moo déposé waat plainte au niveau de lof nag président Ousmane Sonko des mois après voir année kenn nangu nanguwu ci wax te moom bu fekkente ne nee na avocat la war nañu mën a wax que ni en matière pénale quand parquet bi moom moo war a wuti preuve ça c'est un loolu déjà dafa leer moom moom war na ko wax su fekkente ne nee na avocat la bien sûr te dans cette affaire la le président Ousmane Sonko non seulement dafa déposer plainte wax ci plainte bi lu leer nañ joxe ay piste yu leer nañ mais yamu ci xaar ay mois kenn yëngatuwul te gis ngeen lu si dossier xalifa Sall bi niñ ko paraxee ci montant wu 1 milliard 800 là on parle de 94 milliards te damay damay am lu may fàttali président Ousmane Sonko mi ngi ci njëkk a wax ci benn émission bu amee woon ci benn benn télé bien avant même que ni am na benn scandale foncier bu ah, boo xamante ne ni ñu ngi ciy liggéey te bu enquête bi yembee dinañ ci wax mu ñu liggéey ci pendant huit mois ba mu jotee mu déposé ko may temps procureur mu ngi ci njëkk a wax ci benn conférence de presse. te ba mu ci waxee coow li jóg gars yi ërtal ërtal Mamour ërtal Mamour ba finalement mu ne day porter plainte mais ba mu ci waxee président Ousmane Sonko yow ñu tuumaal la ne la da nga jalgati lu toll ni 94 milliards boobaak léegi ëpp na 6 mois nanguwoo sax dindi sa tuuma moom mi muy layoo ni assemblée nationale dafa ubbi commission d' enquête moo tax dañuy xaar ba commission d'enquête bi pare non c'est faux c'est faux rien ne les empêche aujourd'hui de poursuivre président Ousmane Sonko pour diffamation su fekkente ne dañoo bëgg mu leer mais du ñu mës a déposer plainte xam nga lu tax dossier bi c'est du béton te ñoom xam nañ ko xam nga la moo tax ñuy poussé naan na président Ousmane Sonko génne preuve yi parce que président Ousmane Sonko am na preuve yu leer nañ mais ñëpp xam na ne tey bu ñu ko woowee justice ñoom la koy jox su ko génnee ci mbedd mi xam nga lu ñu koy toppee recel de document mais il est bien entouré il a ses avocats tey li wér te wóor mooy su fekkoonte ne bëgg nañ yëf yi leer dès l'instant ñu jox procureur benn plainte ne ko ah askanu Sénégal day ñu ngi jalgati nañ lu mat valeur 94 milliards boo xam ni mënoon na régler problème mu inondation bi mënoon na régler problème mu baykat yi mënoon na réglé problème mu paratonnerre yi ma doon dégg sànq mënoon na régler problème hôpitaux yi nga xamante ne nii suñu euh, soxna yaa ngi faatu ci euh, ay sareet ak yooyu mënoon na régler problème mu njàng mi maanaam Sénégal tout te à faire waxuma à refaire tout yow procureur nga toog fi nga toog rek yëngatuwoo bougé woo mais bëgg mu leer weesuwul nga ni xaaral comme procureur bi nangu ko léegi nag damay dem déposer plainte au niveau du juge d'instruction en citant nommément ñi nga xam ne les mis en cause boobu ba tey ñu ngi xaar juge d'instruction bi donc encore une fois dans cette affaire la benn plainte moo ci am ñaari plainte sax laay wax te ñaari plainte yëpp benn nit ko déposé ah, procureur rek jusqu'à présent xam nga dafa am loo xam ni képp ku am procès bu sérieux ku ñu jiiñ ci Sénégal loo xam ne wóor na defoo ko doo jël waa ji avocat waa ji ñëpp xam na ne ci dossier yi ñu koy jël yëpp pour lëndëmal xel yi la parce que moom du plaider ci tribunal moom ci télé lay plaider plaider na ci tele ba journaliste boycotté ko mën a léegi day nekk réalisateur film comédie xam nga problème bi am mooy nañu waxante dëgg sénégalais yi dofuñu sénégalais yi dofuñu encore une fois le président Ousmane Sonko ba mu dalee wax ba léegi ñoom saa yu waxee loo xam ne lu soxal askan wi la au lieu ñu ñëw tontu ci loolu dañuy dem naan way Ousmane nopp bi dafa gudd bakkan bi dafa weng maanaam du ñu wax mukk ci ci ci li ñu war a wax mais ci nit ka la ñuy dem te xam nga lan lañ ci seet lan lañ ciy wër moo tax ñu jël ku mel ni te avant ñu koy jël moom am na ñeneen am na ñeneen ñu mu visé woon ah am na ñeneen ñu mu visé woon avant mi dem ci mercenaires yi ndax koo xamante ne nii Sénégal taxaw na di ñàkk alal juddul jeex ci pétrole am ñi dénoncé ko ndax benn doxandéem bu jugee ca àll ba ñi condamné ko fu ne ci àdduna bi moo ñëw nit di tuŋaañ alalu Sénégal ñi dénoncé ko yow nga wërbaltiku bàyyi Sénégal fële dem daan da ngay jàppale ji doxandéem ba kooku nga yaakaar ne bu patriote la kooku nga yaakaar ne bëgg na sa bëgg na réewam te moom fàttaliku leen jamono jooja lan la waxoon cité douze non ne da leen di porte plainte ci jamono Franck Timis boobaak léegi ñaata at wala ñaata weer plainte amul kii kii dem tribunal kii plainte dem yëpp ci télé yi la ak ci micro yi. Mm-hmm. alors El dégg nañ la euh, maître dinaa ñëw ci yow mais balaa boobu ñu may chroniqueur yi ñu sànni si seen kàddu ñeenti interpellation yoo xam ne nee na film bi donc comédie la ñaari plainte am Sonko ko def of of nag ak euh, procureur yi arrive finalement of nag recel de document la ñuy bañ ñu jiñ leen bu ñu génnee seen ay preuves. Franck Timis euh, tamit noo ko mën a défendre euh, bàyyi fi Sénégal wala intérêt Sénégal Pape Djibril finalement ni may wax euh, verdict bi <laughs> waaye déet bul waaf <laughs> yow yow affaire bi li nga ci wax yaag buuba defe naa fi est-ce que am na ku leen fi ëpp lu ngeen ci wax alors yow noo jàngatee finalement commission d'enquête parlementaire bi tey ba léegi coow li des fii. d'ailleurs man je vais faire très c'est-à-dire que pour man. dina baax ci man de. pour man ma gagner du temps merci. non en li ñuy wax yëpp ci débat bu fekkee man ak Bouba ñoo a wax li wax yëpp mooy euh, ni nga xamante ni noonu la ñu war a di yennee Sénégalais yi rapidement sur certaines questions pour mën a dem définitivement sur les vraies questions. Hmm. xam nga gis nga li ñu fi commencé di waxtaan léegi am na ñoo xam ci dëj la ñu nekk dëj ba pareegul. ñu daal di basculer ci li nga xamante ni débat de personne la man débat de personne bi li ma ci gën a intéressé c'est-à-dire au-delà des personnes mhm. ay institutions lay interpellé c'est-à-dire que mooy la direction des domaines mooy commission d'évaluation bi nga xamante ni suuf soosu nga xamante ni wax nañ ne opposé na depuis 1978 mhm. famille Ndiouga Kébé su ma ju Djily Mbaye ak famille ak famille Ndiagandooy depuis 78 sunu justice amul capacité tirer cette affaire là ba 1997 su ma juumul la expropriation bi di doog a am ba lenteur administrative yooyu xëy na ak ñàkk a dématérialiser sunu système moo tax lu ne mën na ci dugg moo tax jënd signature ak fexe ba am ci dara loolu yëpp mën na ci dugg donc encore une fois c'est une question boo xamante ni sunu système. am na ci ay lenteur yoo xam dañ ko entretenir à dessein pour s'enrichir loolu mooy la vérité on a des fonctionnaires yoo xam dañu enrichir de façon lu doy waar ñoo xamante ni gis nañ leen nit ñi dañuy posé wu question boo nekkee ci position bi nan nga mën a amee alal ju toll nii te ñu jàpp ne ci administration bi ak ni mu tëddee mooy jur yu mel noonu donc encore une fois pour man c'est une question de gouvernance boo xamante ni comme l'a dit Charles c'est-à-dire il faut qu'on se regarde dans pour wax ne suñu système moom moo feebar bay jur lii maintenant li ma ci désolé man mooy nan la ñu mën a ñàkkee capacité régler ces problème là définitivement pour prendre en charge les véritables problèmes yi nga xamante ni mooy li ma la wax léegi am na ñoo xam ñoo ngi dëj fii may wax ak am na ñoo xam ci biir mbënd mi génn guñ mhm. fii may wax ak yow am na ñoo xamante ni fan la ñuy fanaan pour pour faju te amuñu lu leen faj loolu mooy les vraies questions malheureusement qui qui doivent être prises en charge maintenant question yi justice bi dañ ko gis man tey jii pour man Mamour Diallo dafa war a sant yàlla li mu bokk ci mouvance présidentielle parce que jàpp naa ne tey jii bu nekkoon de l'autre côté xëy na on mmh. cette affaire serait vidée depuis longtemps mmh. merci beaucoup dégg donc encore une fois man waaw c'est ça qui me dérange dans cette ma ko diggee woon beneen bi aussi mooy euh, tribunal médiatique pour man c'est pas le plus important mm. ale buuba dama xamul fan nga wékk nii ñun liñ ci wax kenn waxu ko ci kii ñëppay wax li ñu xalaat Malal day wax Charles day wax keneen day wax je pense que euh, ñaari mbir dafa am quand réew mu ndóol lañu nekk su waxee 94 milliards génnee dafay interpeller les 16 millions de Sénégalais dafa war a leer absolument du affaire du affaire du 1 franc du 2 francs milliards du luy génn réer comme ça Mm-hmm. il faut mu leer ñaari affaire dafa am pour pourquoi on du ñu simplifier sama yaay jënd ca kër gay liggéey toog wala sama pap wala sama ndijaay wala sa pap wala sa yaay moom lu mu bëgg comprendre mooy que soo koy expliquer dara nga expliquer ko mu simple mu comprendre la 94 milliards dafa bëri ana mu génn na fii fan la dem loolu pour leeral ko munul yàgg ana xaalis bi mm-hmm. il faut que il faut ngeen simplifier mbir mi Sénégalais yi xaalis bi. c'est ça 94 du 94 mille du 94 millions 94 milliards wala 46 milliards c'est beaucoup d'argent bu génnee fenn ci Sénégal dem feneen nañ ko simplifier nañ ko teeraa wàcc affaire bi pour man bu Ousmane Sonko ne 46 milliards dafa génn wala 94 milliards dafa génn Mamour Diallo il n'a pas le droit. de ne pas le poursuivre bu dee li muy wax du dëkk réew mu ndaw lañu nekk. Eh, Me El tudd na fi doom tudd fi jabar tudd fi bàyyi bàyyi jàmbur nga jëkkëru jàmbur nga doomu jàmbur nga. 94 milliards bu ñu ko tuddee ci askanu ci xaalis boo xam ne tudd na aussi plainte waaw waaw ah, ma eggali bu ñu déglu woon te li ma li ma li ma li ma doon wax moom mooy que quelque part su fekkee ci 46 milliards la wala 95 14 milliards génn na fenn ci ci réew mu ndaw mi dem feneen il faut ñu xam ko rapidement. Hmm. bu dee Ousmane Sonko. li mu wax Mamour Diallo nekkul Mamour Diallo warul xaar ay 6 mois da ko war a porter plainte parce que dañu war a leeral parce que ñoom Ousmane Mamour Diallo dafa nekk di liggéeyal Sénégal Sénégal moo koy fay. buy booy boo nekkee di liggéeyal askan bi ñu tudd 94 milliards wala 46 milliards la première chose mooy que dalal askan xel bi c'est pas un problème boo xam ne personnel ce n'est plus un problème personnel c'est un problème du Sénégal de l'état du Sénégal affaire bi dafa dafa dafa dafa dafa lëndëm mhm. loolu man Jacques d'accorduma ak maître El Hadj Diouf ci côté boobu ci beneen côté bi dama bëggoon laajte aussi Malick mooy man xam nga fan laay nekkee à l'aise est-ce que fii maître El Hadj ma koy dégg muy sukkandiku que en réalité Ousmane Sonko avait des intérêts sur ce cet argent moo tax mu xëpp ci bëgg ci xëpp ci. après nag waaw mais xaaral rek xaaral rek xaaral rek non non non xaaral rek. xam nga xam parce que parce que parce que bataille bi xeex bi. bu dee da nga koy xeexal Sénégal ah ton intérêt personnel waru ci figure kooku il faut mu leer bu ñu Ousmane Sonko di xeexal. moom personnellement intéressé wu ñu Sénégal moo ñu intéressé moom lay xeexal donc il faut que cette bataille la soit une bataille pour le Sénégal pas pour son pour pour moom boppam wala dara donc il faut côté boobu mu leer beneen côté bi leer mooy aussi mënuloo ak li nga xam ne dëkk bi ku fi def loo xam ne waroo ko def Adama Gaye bi génn ni euh, tey ba mu waxee la mu warut a wax fanaanu këram ñu yóbbu ko c'est-à-dire que les gens sont très pragmatiques suñ la jekkoo Khalifa Sall affaire bi mënuñu ko trainer il faut que ci sénégalais bi mu leer 94 milliards yi lan moo ci génn bu ci génnee fan moo dem on peut pas chercher loolu faut pas chercher de midi à 14 heures très c'est très simple à prouver mm-hmm. il faut que ngeen leeral mbir mi mm-hmm. mu leer mais du problème de personne c'est un mm-hmm. problème bu dee 46 milliards dafa génn ci suñu kii dem ci nit ci nit ku mu mënti nekk nañu ko leeral loolu moo am solo allez Malal à toi yes euh, pour man c'est euh, le Sénégal est au-dessus hein moo nekk ci kaw parce que c'est l'intérêt primordial ñu jàpp loolu parce que Ousmane Sonko moom lay woy ci télé yi di ko woy ci rajo yi Mamour Diallo aussi il est payé par le contribuable sénégalais. Mm-hmm. donc bu ñuy wax dafa am lu état du Sénégal soxla woon ay nit moom ko état du Sénégal jël ko parce que utilité publique la expropriation la pour cause d'utilité publique ci loolu moo am article 30 boo xamante ne dafa ne bu loolu amee. bu état soxla te ma moom état war fa jaarale mbir diggante bi warul am intermédiaire ku ci dugg nekk ci intermédiaire tu es faussaire daf nga li nga xamante ne lu dul yoon te ci mbir moomu ñu ngi ciy wax ni Ousmane Sonko daf ci dugg ba tudd ci 12 pour cent ba tudd ci 12 pour bu ñu bu ñu jógee bu ñu jógee ci li ñuy tudd 12 pour cent yooyu. Mhm. nee nañu 94 yi war na ci am normalement. 11 milliards 11 milliards 280 millions. war na ci am 11 milliards leeraguñu li ma jàpp mooy Maître El Hadji ci rôlam la nekk avocat la bu am benn client bu koy défendre. bu ñuy bu met El Hadj di wax ni bu ñu neexee duñ porte plainte ki mu ki ki ñu tooñ bu ki ñu tooñ bu ko neexee du porte plainte mm-hmm. mais bu waxee loolu te nekk fii di ko défendre également ça fausse un peu le jeu. di dina dina porter plainte mais après. commission non non non non. loolu exemple jërëjëf. commission bi d'ailleurs pare wu ñu. non bu leen non non non non. ci ñu toll laay wax néew du porter plainte dama ni. non amuñ droit porter plainte. commission bi pare na wala wala. non plénière waaw ah, ok dama guñu plénière. waaw ci fi ñu toll c'est vrai ci fi ñu toll. ci fi ñu toll waaw. ci fi ñu toll justice bëreegul nekk en entre en action. Hmm, oh, d'accord mais dafa am beneen. ça c'est la procédure. donc nangu nañ. damay dégg damay dégg Alaaji Malick li ñu bataaxal bi ñu yónnee bi ñu yóbbul procureur hmm. tuddee ko plainte ce n'est pas une plainte parce que une plainte elle précise danaan diw hmm. danaan diw Charles moo sàcc sama mango mais du ma ne monsieur le procureur maa ngi lay yëgal ni am na ay mango yuñ sàcc da nga naan sàcc nañ sàcc nañ sama mango te ki ko sàcc mu ngi tudd Moustapha Ngom de Baye Laye parcelle numéro 814 il faut être clair une mangue qui est volée nga ne diw moo ko sàcc tu connais le voleur de ta mangue il faut nommer le voleur de ta mangue loolu moom mooy lu leer parce que quand même quand on vend aux Sénégalais le concept de la transparence il faut que d'abord que ñun ñu taxaw fa parce que c'est un rêve qu'on a vendu aux jeunes Sénégalais Y en a été traité de toutes les sortes ici de toutes les sortes son procès a été fait un peu partout bés bu nekk ñu werante du ñun suñu der yàqu na fépp ci àdduna fu nekk ñu wax ñu lu nekk pour que ñu bañ a toll ci situation yi ak Sonko parce que dafa am fu ko ndaw ñi teg damay dégg ndaw ñu naan Sonko jërëjëf Sonko jërëjëf il est même spiritualisé. Hmm. Sonko jërëjëf dangereux de. non non non non du ma dugg ci ay jugement du ma dugg ci ay jugement mais bu ñu demee. ba toll foofu man maa dégg Sonko à la place de l'obélisque mu ne xam naa banque bi ñu def virement bi xam naa numéro de compte bi et je connais le nom de la banque mais il faut le dire loolu mooy dëgg c'est-à-dire tu connais le nom de la banque tu connais le, le la date du virement tu as un numéro de compte il faut le dire il faut le dire ça c'est quand même important parce que quand même les sénégalais au-delà des gens yi nga xamante ne ay fanatiques la ñun romb na ñu nekk ay fanatiques fi ñu nekk mooy on a envie d'être bien gouverné mm-hmm. on a commis une erreur xëy na ak Macky Sall en pensant que c'était l'homme de la solution on a pu commettre une erreur en pensant que c'était Wade mm -hmm. certains ont pu commettre une erreur en pensant que c'était Abdou Diouf mais on ne veut pas di retrouver waat dans une situation de règlement de compte avec Sonko donc le principe de la transparence ne serait-ce que pour ñi nga xamante ne c'est des caciques c'est des in nu mutu inconditionnels de Sonko il y a des inconditionnels de Sonko il y a des gens qui ont peur de parler de Sonko wala de dire de tel de tel même sur certains sujets il y a dans ce pays mm -hmm. il faut mm-hmm. qu'on évite de mm-hmm. dire qu'il y a des intouchables il n'y a pas mm-hmm. d'intouchables dans ce pays ni Mamour n'est pas un intouchable Sonko non plus n'est pas un intouchable dans ce pays il faut que la vérité soit dite merci la ki mën a wax dëgg bi ki mën a wax dëgg bi Sonko la qui me non. c'est la justice. non oui d'accord naa. oui mais parce que. mais gëmul sax justice bi daan justice tey moo mën a gëmul justice bi. mais man maa war a wax may leen ma wax. quel contrat yow nga ne gëmul justice. may leen ma wax man maa continue. oui Malal yaa ngi wax mais bu ko arrangé bu ne justice bu ko arrangé. wala ne pas aussi que Maître El Hadj Diouf donne l'impression que que. Malal que je le défends. non tu me défends pas Malal. non non mais il n'y a pas de justice. non non non. pas ça l'arrange. non ah, il ne faut pas me. kenn du ma perturbe allez-y Malal xaaraatul sa tour. kenn du ma perturbe ba léegi sax. parce que quand même <laughs> ni ñu fi xosee Ablaye Wade di fi xosee ay nit di fi c'est-à-dire ici jàkkaarloo la. Sénégalais yi ñoo ko moom di ko seetaan. absolument ak ku mu munti doon. absolument et même avec le parti de Sonko. Cette télé a été traitée de n'importe quoi. Il faut rétablir ça. <laughs> Cette télé. Menacée. Non, non, non. Eh, malal rappel historique rek. malal daaneeloon ko bàyyi ko mu génne lépp c'est pas grave. bàyyi ko mu génne ba doyal. je ne amul benn problème. quand tu le dis tu me pointes un doigt accusateur. non non non quand tu le dis comme ça malal c'est pas la peine. génne wu ma ba doyal je suis en train. c'est son li ma doon wax maître. mais noonu laay waxee. oui noonu laay waxee ce n'est pas spécifique. il faut que ñuy nangulante loolu aussi. mais ce n'est ni may waxee nii ce n'est pas spécifique à une mm. personne. Mm. non yaa ngi xaabaabal parce que. ñoo ñoo ngi wax ci benn dossier. génn nga fa dem nga ci militant wu Pastef yi dem nga ci affaire u TFM dem nga. yeggal fu la neex ma ne moo tax dama ne yeggali fu la neex. non dama ne y' xalaat sax ni que tu règles des comptes. non non je ne règle dama ne waaw mais kii bi man daal bu leen dog ma mu ngi wax ne kenn moo war a wax ngeen mën a mën a bàyyi ma ko loolu. <laughs> kenn moo war a leeral Sénégal yi. loolu la on l'empêche de parler. non maître du toog on l'empêche de parler. man y a pas plus démocrate que moi man je me bats pour que ku nekk fii. d'accord xam naa ba oui ku nekk wax sa sa kenn moo mën a indi Sénégal yi kenn dog ko commencé ko dog bàyyi ko mu leeral. dama ne il y a. dañ ne dañ ne une minute pour conclure s'il te plaît qu'on passe. Euh, xam nga barki keroog fii. Charles dafa toog ne heureusement qu'il y a Sonko. Mm sur le problème du fer. nous avons tous applaudi des deux mains. ñu ne sur cette affaire de 94 milliards. j'ai envie de poser une question. oui c'est c'est quoi est-ce que. Mhm. Mamour ki ñuy woowee Mamour. Diallo am na pouvoir u décaisser xaalis génne ko. joxe ko mm. est-ce que l'argent est sorti est-ce que l'argent est sorti on a d'abord entendu 94 milliards on a est aujourd'hui à 46 yi nga xamante ne dégg nañ le compte est connu la banque est connue pour man pour aller très vite pour aller très vite il faut sortir le tout nga donc sa question est précise Charles à toi ma jeexalee papis la. dama koy commencer par fu mu ko wax heureusement que Sonko existe mais damay abonder totalement dans le sens de Malal parce que affaire bi finalement aussi il faut pas qu'on nous prenne ñu jël sénégalais yi pour des dindons de la farce euh, gis nga affaire bi c'est une affaire privée boole au début ñaari njaboot ñaari famille mm-hmm. état du si mu am contentieux de de deux cent milliards ah état du lu ngay exécuter loo facilement état. Mm-hmm. boo la waroon fay sax dërëm c'est à son rythme. mën mm-hmm. na jël trente ans quarante ans. on est dans le domaine de l'argent donc on est dans le domaine bancaire et quand on est dans le domaine bancaire haute finance à ce niveau-là l'information est très très importante mu am koo xamante ne. am na information mu ñëw ne day jël créance ga c'est des pratiques connues c'est mm-hmm. des pratiques connues ñoo xamante ne dañuy liggéey xaalis am na ñoo xamante ne information rek la ñuy ut créance ñu jël ñu. pour que état dina fay. ma jox la nangam téye ko ba ni ngay wax man que ñu fay ma tey wala dans dix ans. exactement parce que mën naa ko. parce que si loi bi dafa tere et il a fait bien de le dire dafa mm-hmm. tere intermédiation. Mm-hmm. mais terewul la nga jënd. créance bi boo jëndee yow boo ma joxee créance ga maanaam yow nga am problème ak état. ngeen dem 200 milliards waxante waxante ba ngeen nangu benn montant. xam nga yu demee noonu man ma ñëw jënd créance ga am loo xamante ne jox naa la ko mais maa moom léegi xaalis ga. léegi est-ce que état bi fay na ma ko wala fayuma ko et je suis d'accord avec Malal mooy que bu fekkente ne dafa am receveur buy bind buy bind chèque. mais chèque bi du moom moo koy euh, receveur u impôt du moom mooy fay il faut que mu dem trésor trésor dara fay te trésor pour mu fay il faut que mu am du dëgg qu'est-ce qui s'est passé à mon sens et tu fais bien de toucher l'intermédiation boo xamante ne un cabinet de Sonko a été identifié par rapport à ça ça la loi l'interdit par contre la loi l'interdit et il faut dire les choses quelle loi je vous comprends très bien non je suppose je pense que la loi l'interdit gëstu naa xam nga dafa am sànq mu ne journaliste et il a raison sur un certain kii il a raison man dama gëstu ba ba dem ba jël on il n'y a pas d'interpré d'inter d'intermédiation dans ces contentieux là Et si vous ne le savez pas, je vous demande de vous rapprocher de là où il faut parce que vous faites de la politique. Vous faites de la politique. vous de la politique, vous devez être irréprochable par rapport à un certain nombre de choses. C'est tout, mais je ne vous, en remets pas pour ça. na je pense qu'il y mon avis il y a eu erreur et mal donné je pense qu'il y a eu erreur chez Sonko je pense qu'il y a erreur chez Sonko non parce que je ne peux pas dire que lu mu def c'est volontaire dans le but de nuire. si moo ko tey. non loolu mënu ma ko wax. xamoo nit ki moo tax. waaw non maître s'il te plaît. je ne peux pas taxaw fii ne daf ko def dans ce but. man mu moom. bu fekkente ne dafa am koo xamante ne dafa jënd créance ga xëy na xëy na xamoo kattanam xamoo dooleem xamoo. amoo information. wala mën nga xalaat que c'est un de paille maanaam il des intérêts yoo xamante ne yow xamoo ko. Hmm. il se trouve que le la créance est solide bi jeex na. maintenant est-ce que tous les virements sont passés mais non bi dafa metti tu penses que l'État a 46 comme ça. temps na 55 milliards. alors non c'est-à-dire bi mooy lan dëgg dëgg bi mooy xam nga lan moo am nous avons un fonctionnaire qui est à des niveaux de responsabilité yu am maanaa et ça da renvoie toog il faut que ñu demaat xool suñu impôts yi lu fa lu fa ne loo xamante ne foog ñu xoolaat ko et qu'on aille faire un grand ménage dans les impôts et domaines mënoo mm. nekk à certain niveau de liggéey di gis xaalis bi di circuler à un moment il est normal que nga gis loolu nga ne da ngay dem démissionner parce que tout simplement tu découvres un certain nombre mais dafa laaj ay aptitude c' est de l'intermédiation que tu vas faire si ay secteurs yu am maanaam parce que mm-hmm. xaalis à un niveau très high tu n'es pas un enfant de cœur da ngay am xaalis mais je pense que ça a été une erreur stratégique c'est pour cela qu'on parle de justice la justice ne va rien régler dans cette affaire l'Assemblée nationale va éclairer ça et on se rendra compte qu'il y a eu une erreur dedans s'il y a de la manipulation pour le ça alors Maître El Hadji Diouf il fait son job c'est un avocat il va le défendre jusqu'au bout c'est normal lu mettre lu muy wax wala lu mu waxul c'est que sénégalais yi ils attendent un résultat parce que dañu entretenir benn somme bu extraordinaire et c'est tellement vrai ce que le gars disait par rapport à l'importance milliards yi quand le Brésil a eu l'histoire de l'incendie Amazon mais le G7 a proposé 20 millions d'euros jegewul sax 94 pour dire combien la somme est, est, est énorme donc man damay pour ne pas monopoliser la parole dañuy toog damay bokk Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi xaar lii am lu mu jur. Hmm. c'est que débat bi yëpp c'est entre ñoom parce que dafa am benn connotation politique. Hmm. parce que c'est un c'est un duel entre politiciens ça se comprend mais le Sénégalais comme moi qui euh, très loin de ça bëgg na xam 94 46 jël na ko amul preuve. mais finalement commission la justice attendra que l'Assemblée termine son travail tout ça c'est bien beau mais nous on a rendez avec la vérité <coughs> alors El ma ma ñëw ma ma ñëwaat ci yow parce que interpellation yu bëri si si sa bopp eh, mais moom après ma oui moo après yow mais mais maître man tamit xam naa li may def euh, euh, malal dafa am euh, interpellation yu am solo yu mu def ci yéen loo koy tontu d' abord man en fait. li ma la buuba sax ñoo bokk. li ma li ma xaw a jaaxal mooy affaire bi dafa mel ni nit bu dugg sa kër di jël sa kuy moo war a tabaskee nit ñëw ne la ah am na waa ji teg sa kuy mi pour yóbbu ko nga ne ko yow est ce que du da nga bëggoon bu ko yóbboo jox la pooj bi problème bi ku taxaw naan affaire privée la. Hmm. c' parce que comprendre dara ci yëf yi. Hmm. qui paye dans cette affaire là. c'est l'État mënul mhm. nekk affaire privée mhm. c'est notre argent ce qui s'est passé c'est très simple ñëpp xam nañ histoire Ndiaga bi est-ce que xam ngeen ne ba léegi exproprié guñ ko et pourtant l'État a reconnu avoir payé trois cent trois milliards cinq cent mhm. c'est grave dem leen xool dans quelle base lañ ko fay mais beneen affaire bu am soo déggee ñu naan 46 milliards 44 milliards ak 94 non somme totale bi mooy. 94 le dossier c'est 94 milliards. mais ñoom bi ñuy def seen deal. ñaari société lañ présenté. Sofico ak CFU ñaar yëpp même personne Seydou Sarr. Mhm. kenn ki ñu war ko fay 46 milliards et quelque kenn ki 44 milliards et quelque nga mhm. def addition bi mu jox la 94 milliards. xam nga di jéem a tën lu tuur la ndam Sénégal yi naan du Mamour mooy fay. c'est évident waaye këyit bay tax ñuy fayee kam moo koy signé acquiescement yi ku koy signé wax ji yëpp loolu c'est pas le ministère basé sur des faux basé sur du faux en plus xam nga le problème c'est quoi mooy encore une fois problème bi mënoon na sax bañ a yegg fii président Ousmane Sonko mënoon na sax bañ a wax ci conférence de presse dossier bi ndax on a donné assez de temps au procureur malal encore une fois on n'a pas besoin de dire X, Y, Z. Je suis désolé. Sinon, euh, plainte contre X donc. xam nga problème bi lan la. nga ñëw fekk procureur nga ne ko hé sëñ bi. mais je précise juste hein, c'est-à-dire dafa am ñaari type quand tu écris au pro au procureur nga bind ko wax situation il y une une la la plainte elle est là c'est pas une c'est une dénonciation je peux la lire. y a pas de nom. la dire a pas de nom. waa déglu man maa man nga ne ma sàcc je veux qu'on soit clair man da nga ne man malal maa sàcc. am ci lu la leer. Mhm. maa jël sa gaz. Mhm. sa gaz laa jël. maa dugg sa nekk jël sa gaz. gazu Sénégal nga jël. waaw d'accord ma dugg sa nekk jël gazu maa dugg. Sénégal maa dugg Sénégal jël gaz. maa dugg def jël pétrole Sénégal yóbbu. waaw nga xàmme ma xam yére yi may sol xam heure bi ma dugg mais tudduma. ma tontu la tudduma c'est très simple. tontu bu simple laa lay tontu. xam nga cette affaire là xaalisu xaalisu Sénégal yi ni jël du ma wax sax xaalisu état. parce que tool mm. yi tool Mm. Sénégalais yi ñooy fay. Mm. nga gis loo looxoor bu am ci mm. bërëb. pour dire que c'est même pas une affaire personnelle nga ni procureur de la République. Mm-hmm. dans tel dossier tel service direction temps ñu xam ko moo yor direction bi loo looxoor bii am na fa man dama déposer plainte pour ñu leeral ko. yaa ngi comprendre bu baax li ma la wax xam nga loolu dafa leer xam nga procureur lu mu war a def ne ah man day comme man sénégalais dañ ma fi teg ma jiite parquet bi nekkal fi sénégalais yi xaaral ma dem xool parce que moom moo am assez d'éléments pour dem mener les enquêtes qu'il faut la preuve lu tax UEMOA promulgué loi boo xam ne day wax ne sax léegi les fonctionnaires bu ñu gisee naka su dul noonu nañ ko dénoncer sinon ils seront indexés pour complices c'est pour permettre parce que procureur xëy na am na ci yoo xam ne mën na ci mën na ko bañ a yëg forcément mais la fekk ñu ñëw tegalal table sa ta ne la et puis soo ma woowee ma ñëw indil la preuve yi yaa xëyti procureur na ko woo ne ko sëñ bi kat li ngay wax nii lu graaw la ndax 94 milliards yu Sénégal yi lu ne mën na ci mën nañ ko cee def kaay wax ma lam moo tax nga ne lii dañ koo nangam su fekkente ne amul ñu jàpp tëj ci kaso bi ak yomb Sénégalais yi seetaan li ma bëgg ñu comprendre mooy yëf yi indemnisation bi ça deve jamono yooyu mètre carré bi c'est indemnisation 1000 francs la woon boo defee calcul bi xam nga ñaata lañ ko indemniser le mètre carré 37000 moo indi 94 milliards yi mais waru ko woon nekk. c'est dangereux dama bëgg ñi ñi dem gëstu ngir yàlla na sénégalais yëpp wàcc mbedd bi ne procureur jëlal dossier bi nga leeral ko. alors moo gën xoolal moo gën ñu nekk fi naan non. Euh, dafa jaar nii daf ci bëgg 20 pour cent daf ci bëgg 100 pour cent problème bi xam nga lan la daf ci bëgg 100 pour cent na procureur enquête su dee moom daf ci tax ñi def li ñu war a def xam nga. mais compte bancaire bi par exemple du ngeen ñu wax ban compte bancaire ak ban banque yow est ce que xalaat nga <laughs> une seule fois ñi taxaw meeting naan banque X numéro X mais il faut soyons raisonnable <laughs> euh, Abdoulaye Abdoulaye non foofu laay daaneele foofu laay <laughs> daaneele parce que parce que foofu laay daaneele encore une fois parce que Charles li mu wax assemblée nationale. Hmm. bu defee enquête parlementaire am fan la koy yóbbu. non la plénière bi day dem plénière. bu paree laa wax lépp. Hmm. déjà violé na loi. Hmm. kii moom na ma wax article 48 bu assemblée nationale lan la wax. yow boo defee sa lépp ba pare da nga koy jël dem mm. jébal ko juge mm. mais entre temps bu fekkente ne juge am na assez d'éléments pour ouvrir dossier bi mm. procès assemblée euh, enquête parlementaire day kaddu day arrêté na ko wax il faut être de bonne fois dans la vie maître donc tontu na la ci fi nga ne kii wet liiral article 48 bi liir ko ñëpp dégg bu dee avocat liir ko kenn nelawu fii <laughs> mais maître lu mu tontu tamit nee ñaari plainte daal li firnde wu moo moo am nga baal ma deuxième plainte préciser ma dem ci maître depuis sànq maa ngi lay ganale boo seetee bu paree liggéey bi yëpp day dem jébal ko procureur mhm. waaye fa dem di ko fa jébal ñun jiitu nañ ko fa mieux. comme dañoo génn. dañ ko déposé mais Malal ba léegi d' ak yéen. te anam bi ngeen fa jiitu non mm-hmm. mm-hmm. nee na d' accordul la fekk tudduñ tur parce que dañ leen fa jiitu pendant quatre mois ñuy xaar. procureur waxul dara ci mm-hmm. assam ci ci ci ci ci benn conférence de presse la ñu cité finalement ñi nekkoon ci bopp direction yooyu mais mieux bi ñu dem juge d' instruction on a cité nommément Mamour Diallo. Tahirou Sarr et autres nommément je dis bien. donc actuellement il y a plus d'excuses. il faut que s'il te plaît mayal mayal maître je sais que bëgg nga kii mais mayal mayal maître maître alors deux plaintes am ci li mu wax nii yu firndewu te ñoom ñoo ko bind. procureur ak OFNA. bon dama ñëw ci plainte bi ñëwaat bu ma soral film bi xam nga ko ci film bi. non film bi nee na la comédie moom kañ loolu la la toll. man damay xam nga man wax man wax. contenu bi la de. xam nga man naa ñëw ci contenu bi. Hmm. dañuy bëgg éloigner du film. Hmm. film bi li mu génne kenn mënu ko weddi mhm. mais avant bi ñëw ci film bi wane mhm. du comédie dëgg la mhm. xam nga dee saboté plainte amul <laughs> contre Mamadou Diallo ah bon ma la plainte bi waaw waaw comme ni ma la wax bu dee non lii lii lii ko indi rek ñëw indi indi plainte amul plainte naa pour détournement pour présumé nee na ko détournement présumé xaw ma ndax am naa wala amul détournement de quoi de deniers publics un. Oh. yaa reconnaître conférence de presse ne 294 milliards am na bi. Um, s'il te plaît eh, El Malick comme de déglu na bon peut-être une ou deux fois xaw na dagg mais. dama ni ñaan nañ ko ba noppi déglu ko. plaintuñu comme ni ko Malal waxee Malal nit a dëgg la. Mm. ak ah, faraluñu de. kon bu foon dama foon de dama ñuy faral tax ma jàppale ko dama bëggoon mu dugg tax dama ko xam. Mm. ku am fit la bon. plainte bi Mamour Diallo. non attends procureur tudduñu Mamour Diallo. un tudduñu titre foncier bi ci boppam tudduñu héritier yi. ba pare amul droit moom Sonko porte plainte pour détournement de deniers publics loolu état bi moo ci am droit wala les démembrements de l' état l' agence de l' état mën nañoo représenter l' état. mais mën na def dénonciation dénonciation bi ci vérificateur général la. ok la bëgg bu yi détournement de deniers publics nga bind plainte yow yow yow en tant que Ablaye Der. Mhm. c' est irrecevable. oui Macky Sall mooy chef de l' état amul droit bind plainte pour détournement de deniers publics Macky le premier ministre tous les ministres ministre des finances amuñu droit porte plainte c' est l' agence judiciaire qui représente l' état du Sénégal xanaa xam ngeen loolu Macky Sall amul droit bu plainte de mën na ko def ministre de la justice mu wax procureur am ñu seet lu ñu poursuivre nit mais agence judiciaire mooy def constitué partie civile porte plainte pour les intérêts de l' état loolu aussi xëy na soo ko xamu ko donc mosul porte plainte Mamour Diallo astaghfirullah nga nekk avocat xamoo ne. juge d'instruction may ma may ma may ma bu ma dog. Hmm? plainte baa ngi nii may ma juge d'instruction bi démb la. ban nga wax ba pare ñu door a continuer kay. Hmm, hmm. man de plainte bi ma yore. ma la léegi nag fan yii passé bi commission d'enquête defee conférence de presse seet na wicc la dem porte ji plainte ca juge d' instruction. ne mm-hmm. porte na deux plaintes mooy dañu dévoiler secret yi yi waroon nekk plénière bi xam nga loolu la wax. Mm-hmm. donc assemblée violé nañ commission violé na. dans la forme. la forme xam nga wax na ko. ba pare ni bii pas topp topp euh, diw diw diw loolu yàggul matul weer. par contre li tax ma def film bi bu ñu bu ñu sori film bi mooy ne débat bi. Mm-hmm. dama wane société atras ñu wane bi mu nekkee 2S wax Alaaji Njaay ñu ko dégg nañu doo def intermédiaire sa société mu ne ñu ne ko mun noonu non ñu ne ko Mercalex defu ko mu ne man aw ma société bu tudd Mercalex Pape Alé Niang ne ko yow kon sa société nu mu tudd fii maa ngi de mu def nii oh, allo allo dama sonn waay dinaa nakk si la turati waay ba ma sama ko sama film keroog borom total wala borom Shell da nga laaj société mu naan muy euh, borom total wala borom Senbus mu toog lu yàgg naa nii nii nii waaye dama sonn waay dama sonn film wone na ko. ba yàgg mu ne noonu Atlas groupe la tudd ci Atlas lii leen foofu Atlas amul Atlas groupe foofu aussi waxul dëgg. Atlas fa ne mu ne Atlas groupe film yi wane na ko. toujours ni muy blague bi ni muy defi Sénégal di leen nax rek Atlas groupe amul Atlas bu am ak Mercalex moo leen moom Mercalex gi nii daan leen woon erreur yi mu def ci ñu wane ko ci film bi Atlas bi am réunion ak les héritiers lii la réunion bi protocole bi ak 12 pour cent yi ak feuille de présence Sonko Ismaïla Ba. lu sommes le 6 août date baa ngi noonu ci suuf. 2018 ñu ngi doon waaj a dem élection présidentielle 2019 on était à 7 mois des élections de l' élection présidentielle. combien de mois après la bu ma dog bu ma dog bi loolu pare mu dem Mercalex bi demee tiit mu ne ah atlas bi wóoru dëggal ma ma transféré ko Mercalex septembre mu def beneen même chose même héritier yi ak ak Mercalex kii moo yëpp Ismaïla Ba la ko jox mu di ko gérer mais ci biir film bi ñu wane ni. xam nga crime n'est jamais parfait der mu ne Mercalex mu ngi nekk Maristes Atlas mu ngi nekk Sud Foire xam nga Sud Foire ak VDN bi ma nekk sama cabinet nekk vingt 827 lay commencé xam nga Maristes 33 832 lay commencé le même numéro de téléphone du 827 moo nekk aussi Maristes pour Mercalex xam nga loolu c'est impossible c'est cela prouve que du ñu fay fàtte nañ ni toujours moom moom yëpp Mercalès ak Lac ñoo ci même numéro téléphone alors que siège yi ñaari siège la tur yi du benn yàllaa ko feeñal foofu film bi yëpp la génne bi gën a garaaw nag ci film bi ñu wane ko moom muy wax tontu héritier yi nii bu ñu bu ñu ëppal bu ñu bëggee nañ nangu soo ko jël wàll du jël sur wàll te li ko doon wax ci plateau 2STV ni intermédiation amul ci euh, indemnisation en cas d'expropriation effectivement. amul pour continuer amul. moom sax na a boo ko wax. film bi lañ wane film bi da koy tiñal. wax. bon ñu dem kanam mu ne man sax am naa ci droit bu ma nekkoon waaye dama a wax ñu ci keneen moo tax man parce que comme dossier bi bi ma nekkee impôt xam naa ci dara day mel ni délit d'initié du ma ci dugg kon dama ko jox keneen moo tax man ma ci. a Ismaïla Ba moom ñoo ko signé gis nga si yi nekk ak sigil bi yooyu la wane ay contradiction inouïe c'est-à-dire ay wax yoo xam ne yëpp benn dañu waroo seen biir. est-ce que cela tamit dafay changer dans le fond. ci laa jëm si voilà problème bi ñu posé. ci laa jëm si ci laa jëm si c'est ça le problème. dans le fond nee na recel le document la ñu ragal. dans le fond dans le fond. on est dans la forme. bu dee faire de la Falémé ñeme nga wax ni contrat dangam Turquie yi bii la ñu signé ak état bi génn ay document teg même des documents périmés yoo xam dafa dépassé am nga droit am waaye bu dee Mamour Diallo cercle privé xam nga alors que Turquie ay centaines de milliers de milliards la. mën nga koo wax publiquement mais pour 46 milliards comme ni ko Charles waxee ak mala la. pour ñu wax ñu ni war a compte bi loolu bëri seen document la. moom moo ko waxoon ci obélisque bu dee woon CBA wala commission d'enquête bi vérifié la banque yëpp. waaw bu dee woon tel jour la loolu loolu recel document la tel jour la saa sax mu joxe document bi mais ñu jël huissier bu dem vérifié ji ko mais dafa amul daf koo sos dama ni la cause de confidentialité lii moo ko feeñal. xam nga wax ci contrat bi signé ñoom bu kenn wax li ci li li signé nii di nëbb di nëmb 12 pour cent yi muy 11 milliards 280 millions. mais lii la cause de confidentialité. oui j'ai bien vu ça. léegi nag léegi nag léegi léegi nee naa Ablaye. Ablaye nee ma yeggali ba Ablaye c'est trop sérieux. Ablaye c'est trop sérieux. oui s'il te plaît daanaka leen comme ça comme ça on va poser d'autres questions. dama bëgg dama question pour vous. waaw dama bëgg ñu ñu ñu leeral man man du ma tagg suma bopp dégg naa mu ne dégg naa ci yeneen télé wooyu ku bëgg gagné dossier judiciaire dossier El Hadji Diouf hmm. ans de de barre waaw ah, mais maître c'est dans le cadre du débat c'est pas ku ko gagné hmm. non maître dossier Bada Bassok ku ko gagné hmm. dossier Mama Dior Boye pare ku ko gagné dossier lu dul jeex même fii laa taxoon nii café de Rome dañoo bëgg sacrifier seen employé pour ay affaire pour boire xeex bañ ko maître boo fi nekkee di cité dossier yi nga dama lay limal dama lay fois combien fois laa annulé demande d'extradition pour Hissène Habré pour Belgique non non non maintenant maintenant Ablaye bi Franck Timis ñëwee fii non damay tontu nag hmm. Franck Timis bu ñëwee xam nga pétrole bi ne dama ànd ñu lay contre Sénégal waaw. moo tax yéen may may ma tontu droit de réponse la. une minute s'il te plaît. depuis ça oui oui. Ablaye Amady ñu bëgg mu leer. s'il te plaît surtout. waaw d'accord mais mais man temps bi jeex na depuis longtemps boo moytul boo moytul tey émission bi dañ koy Ablaye une minute Ablaye une minute. Franck Timis bi ñu ñëwee fii non waxin la c'est pour kii la. Ablaye Franck Timis bi ñu ñëwee fii. mais waxuñu waxut Franck Timis. avant mu jël El Hadj lu mu wax. je vais prendre le meilleur avocat du Sénégal. on laisse répondre. vous vous rappelez. où sont les plaintes. ma ne plainte bi mu ko déposé. bi mu ne je vais prendre le meilleur avocat du Sénégal. Hmm. loolu Franck bi wax. ci la sa jël na El Hadj Diouf. Hmm. xam nga ko de. ah kon kon deuxièmement. jeex na moo la fal na bi ma déposé plainte bi hmm. dama woo presse bi yëpp tribunal. ci la laa nekk lu ñu titré El Hadj Diouf tient son onze de départ. waaye wala xanaa presse bi am na mémoire. ban plainte Baba Aïdara Malick Gakou Sonko professeur Malick Ndiaye ah euh, euh, Abdou Mbaye mais allez onze onze éléments ma déposé plainte bi. mais plainte bi nag boobu. est-ce que mën naa ko war a mën naa ko war a diriger. allez c'est bon maître. wala wala monsieur Touré on a compris maître merci beaucoup. meilleur avocat Timis Fall. dama dama li Fra Timis wax waaw loolu laa wax. ñi ñaan nag di wax seen wax. Mhm. Charles Faye. loolu leen di bëgg a rey. Charles Faye. waaw der man du fi Malal wax. Mhm. te lu ma gëstu gis je suis de plus en plus conforté sur la thèse de Malal. Mhm. je vois plainte pour détournement présumé de deniers publics. Mhm. mais fii amu fi deniers publics. quand même parce que deniers publics la définition d'un denier public c'est des fonds qui sont remis à un organisme public. Oui. cet argent là c'est pas c'est fonds c'est pas en fonds donc mënul nekk denier public. Mhm. je ne peux pas accepter. me lire ça. présumer teg deniers il y a pas de détournement de non il n'y a pas de. l'argent que l'État du Sénégal doit débourser de ses caisses. non le denier public le denier public. est un fonds non. bu leen bu leen bu leen lëndëmal Sénégalais ci français. non bu loo boo ko bu fekkee non je suis désolé. non non may ma rek ma wax non may ma je t'ai écouté. non dama laa déglu d'accord d'accord lu ma wax nii lu ma wax nii. dama la ne un denier public c'est un fonds qui est mis à la disposition d'un organisme public. une question kooku c'est une définition écrite munoo bind denier public. te kii xam nga avocat moo ko war a bind. c'est pas euh, c'est pas lui qui l'écrit c'est son avocat qui l'écrit. je pose juste une question qui paye ah, qui paye dans cette histoire là. non non déglu ma bu baax non attention non dama ne il faut quand on veut être. pour votre gouvernement au fond aussi. non je suis désolé de parce que vous êtes superficiel. Quand on écrit un, une lettre qui porte plainte, Sonko ne peut pas l'écrire, c'est son avocat qui l'écrit et lui il met une signature. Et ah un bon? avocat ne peut pas écrire ça en disant qui présumé le denier public en sachant qu'un denier public est un fonds qui est mis à... disposition de qui hmm. Oui, merci. Ah oui, ça, on l'a toujours dit. La deuxième chose. Non, non, non, la deuxième chose, et c'est là, quand je dis c'est une affaire privée, à qui on doit payer les milliards Bonne question, rek la lay hmm. Est-ce que, est-ce que il y a eu intermédiation de Sonko ou d'un bureau se rapprochant de Sonko auprès de la famille. non mu ngi nii Atlas ak Mercedes. il dit non maître El Hadj Diouf dit si. alors Bouba pose la question. deux réponses proposées. mais ñun tam ci émission bi la ñu bokk. waaw allez vas-y ci loolu ngeen def. pare euh, Bouba pose ta question. non non non bu ma teg non il faut pas nga ma teg pression. non non bu ma ne ñëpp laay teg pression léegi. Bouba rassurez-vous man je préfère discuter avec vous. waaw mais non non non man non mais man man man man dama ne dama ne ci émission bi la ñu bokk. dafa am lu am solo lu am kii mais tegal kayit bi c'est pas important <laughs> ah, kayit bi. ñaari ñaari mbir te tam tëjul sa gémmiñ yaa ngi wax non non kayit bi kayit bi da nga may déstabiliser bu may wax nga téye kayit bi def nii dama koy téye dama ko teg dama ko teg dama ko teg dama ko teg mukk dama ko teg pourtant booy wax ne dañu naan ñoo di la teg waaye ni kayit bi joxo yow dara dama déstabiliser en fait non mais mais teg ko rek ñu waxtaan fii du fii du aw du ay kii tamit du tribunal may ko ko mais non da kay dénal mais kayit bi ma téye nii <laughs> sama <laughs> document bu téye lu la gêné bu ma reposer question non non parce que parce que <laughs> parce que li ñuy li ñuy wax nii c' est très très sérieux. c' est très sérieux voilà moo tax ñu war a. moo tax ñu war a ñu war a bañ ci tëggante ay làmmiñ ak waxante yooyu. te mën a déglu non non nañ déglu rek non. der der danga may bàyyi danga may bàyyi ma poser question wala nga. non non non c' est pas sa question dama ne non c' est pas pour faral. dama ne buuba yëkkati kayit bi. dama ne non franchement non non parce que déedéet may wax mu jël kii ma ne ko mais danga may déstabiliser dama déglu comme ni ma koy déglu parce que c'est très sérieux parce que y a pas de benn caméra te caméra bi fu mu ne nii du wane document. xam nga ni ñuy def après dañuy def séance yoga. voilà non dama ne ngay ngay concentré wu. non dama ne y' a pas de souci. parce que ñu commencé dama laajte ñaari question yoo xam ne jotuma sama réponse bu njëkk bi. Hmm. moom mooy 94 milliards yooyu ñu wax hmm. ah ce que mooy valeur réelle bi nga xam ne état bi war na ko dédommager famille bi. c'est très important. est-ce que non attends xaaral rek déedéet dama ne 37000 francs le mètre carré est-ce que euh, ça équi équivaut ak. li ñu waroon ak non valeur normale bu terrain bi fu mu nekk. est-ce que c'était 1000 francs. danaa tontu oh, mais ma ma rek. boo ko rek a terminer yéen ña ñoom ñaar ñëpp laa ko kii. dossier dossier ñaari loolu question boo xam ne. question boo xam ne c'est très très très très important pour man ah bu njëkk beneen bi beneen bi beneen bi moom mooy si li nga xam ne moom mooy implication wu Ousmane Sonko si dossier bi moom mooy lan mooy que est-ce que implication wu Ousmane Sonko ci dossier bi dafa doon wax mbiru xam nga xam nga tam c'est très difficile quand les gens ils parlent non feuilles yi dina il faut ñu dégloonte quoi non non mais dëggantaan gaañ il faut ñu dégloonte respectante ku ne déglu sa morom dama ne kat euh, dossier bi nga xam ne Ousmane Sonko ex euh, impliqué wu na si ah. Mhm. par rapport ak famille ñi ñu waroon dédommager est-ce que la somme bi ñu doon wax 94 milliards la wala c'était moins. ñaar question yu leer la. Mhm. yoo xam ne réponse yu leer lañ ci laaj. est-ce que Sonko li mu doon xeex. 94 mhm. milliards la wala moins. Malick question bu simple la. Mm-hmm. s'il te plaît Malick tontul ñu. est yëpp laay mm-hmm. bu mujjee bi doo ci tontu. de manière très rapide ñaari laay tontu oui s'il te plaît. très rapidement la état du Sénégal waroon na fay ndax loolu mooy wane ne deal bu rëy la. Mm-hmm. ndax mètre carré bi c'était à ce temps-là à 1000 francs. pourquoi ils ont voulu dédommager à La deuxième chose, les milliards, j'ai expliqué comment ils l'ont scindé. Non, waxuma je suis désolé. waxumala question non non Malick Malick question bi man la dama ne la lii kon Sonko doon xeex. la valeur c'était quoi. c'était 94 milliards. voilà, 1000 francs multipliés par le nombre de mètres c'est très simple réponse bi dafa simple. non dama ne état bi état. état bi non non non état bi état damay def comme malal jóg taxaw dama ne état bi bu waroon a fay Ousmane euh, famille bi. yes 94 milliards la koy fay. wala moins c'est 1 plus 1 réponse bi dafa simple. parce que loolu moom mooy firndeel lu bëri. su fekkee non bu fekkoon ni Sonko dafa nekkoon impliqué ak famille bi. ñu nekk 1000 francs le mètre carré on parle de combien d'argent au service des Sénégalais. loolu laa bëgg a laaj c'est très simple. bon merci ma répondre la. non bàyyi ma terminer parce que par rapport mi ah, non non déposé non waxuma plainte. non xaaral maître maître voilà alaaji maa ngi lay topp xaaral ma terminer. Mm-hmm. parce que en fait. indemnisation légale bi c'était li muy laaj bu dee comprendre non je dis encore une fois indemnisation indemnisation légale bi. Mm-hmm. c'était 1000 francs mètre carré bi jamono yooyu. ce qui équivaut à combien d'argent. non parce que yéen boo la mënee wax 94 milliards ah, mën a wax aussi. quand ça coûte francs 1000 francs wax c'est très important parce que lool parce que bu ñu waxee. c'était deux waaw 156 hectares. ça fait quoi. 256 hectares. 256 hectares 2 milliards 560 mille. ñaata normalement 2 milliards mille mais ce qui s'est passé mais est-ce que on a. non xam nga man non xam nga la mooy sam problème Malick aujourd'hui non su ma waxee 94 milliards. waaw fa laa jëm ah, bàyyi ma tontu damay indi 2 milliards. 500 différence bi. moom la gars yi waroon jël ci contribuable sénégalais. waaw doo bàyyi ma wax la non doo bàyyi ma wax la. Ah. c'est très simple. Hmm. xam nga ki nga xam ni dafa déposé ne ah ñi ngi def loo xóor ci. Hmm. Euh, xaalisu Sénégal. Hmm. ba Sénégal nar a indemniser à hauteur de 94 milliards. alors qu'en réalité ça devait pas être 94 milliards loolu ñëpp xam nañ ko parce que bu ñu defee barème norm barème normal c'est 1000 francs moom mu toog ba six mois après famille bi ñëw dégg dégg dossier bi dégg jéego yi mu ci mëne ñëw seet si ko pour jël ko encore une fois comme conseiller ma ma ma déglu rek ma préciser foofu parce que li ñu naan intermédiaire ak recouvrement c'est deux choses différentes. you're dead man. attends attends je termine. dama bëgg a wax sénégalais yi xam benn affaire tey. sur le plan juridique. rien n'empêcherait par exemple à Ousmane Sonko de prendre le dossier sur le plan juridique. pas empêcher à Ousmane. attends. bàyyil jàmbur waay maître s'il te plaît ma ne sur le plan juridique bu ñu dem ci yoon tey président Ousmane Sonko bi nga xamante ne nii rajo ngeen ko yaakaar ne loolu da koy xiifal président Ousmane moom bi ngay wax avocat du peuple deful comme yow dafa jël deux tiers salaire saraxe ko kooku mu ñëw ñi seet si ko moom proposé ko pour ne mu jàppale leen ci dossier bi ndax dégg nañ jéego yi mu ci mëne mu ne leen may leen ma ma réfléchir mais bi mu demee ba ci biir xam nga lu mu leen wax dafa leer moom daf ne que comme xas na na ci ba def ay jéego te encore une fois ba mu ciy def jéego yi c'était pour letat du Sénégal parce que boobu xamul famille bi musuñu leen a gis c'est des mois après la ko famille bi seet si yaa ngi comprendre mhm. moom mu ni munu ci muni munu ci yàgg mais moom bi mu doon xeexal euh, kii euh, comment dirais bi muy wax ni de ces 94 milliards bi dañ ko détourné su boobu c'était pour que l'argent des Sénégalais soit rendu aux Sénégalais c'était pas pour la famille mhm. xamul sax famille bi donc encore une fois loolu c'est important à préciser léegi yegg nañ ci foo xam ne famille bi ñëw na ne da ñun day dégg nañ jéego yi ñu ci def dañ ma bëggoon mu jàppale la moom mu toog ba mu yàgg mu xam ne comme def mëne na ci ay action donc même du dee loi terewu ko ko éthique morale mayu ko xëy na mu ñëwaat ne dafa soxlawaat intérêt ci dossier boobu. kon li may la jox document yi muy wax xam nga xam nga xam nga li muy wax nii non seulement du dëgg. Mhm. non seulement du dëgg mais lillaay wa rasuli bu fekkente ne ñoom dañu jàpp ne Ousmane def ci def naka su dul noonu. Mhm. comme yéen porté wu leen plainte. ñun porté nañ plainte na sénégalais yi wàcce ne et euh, justice su Sénégal leeral leen dossier bi ñu jotaa suñu xaalis léegi ci wàllu décaissement yi hmm. xam nga en 30 secondes xam nga xam nga déjà nee naa la dafa hmm. am ay pièces euh, d'acquiescement yoo xamante ne ni c'est basé sur di faux donc par par par par kii la ñuy par par pièce la ñuy décaissé. 46 hmm. milliards après day amaat beneen boo xam ne beneen tranche su 44 milliards. mu préciser que ni 46 milliards yi jàll na te moom xam na compte bu ko procureur woowee mu jox ko tous les détails. waa procureur lan lay xaar. excuse-moi non 46 y a y a 46 virgule 46 plus 44 ça et 49 milliards. 44 et quelques milliards et. 49 et quelques milliards j'ai les détails donc. moom xam nga. Euh, euh, li may wax encore une fois mu ni. Hmm. bu ko justice woowee. nañ ko woo mu jox leen éléments yi. Mhm. mais xam nga lu am solo. Hmm. su ko juge d'instruction woowee. da koy laaj ay éléments su dee amul ay éléments mu def lu mu war def. mais tey loolu la ñuy xaar pour woo ko. moi c'est ça ma laaj maître bon si on applique un principe du droit où on dit que la la la charge de la preuve euh, incombe au demandeur mais du ñu dem ci kanamu justice ni nga wax et que Sonko bu boobaa il est obligé quand même de déférer les preuves la justice. principe de droit bu bu bu élémentaire la nag euh, donte soriwuma ci soriwuma ci trop. Ablaye. Hmm. te dul avocat moo tax yow waxee noonu. waaw moo tax man la sama kenn mënul tere loo jàngul. Hmm? te moom xam na ne ñu bëri jànguñu droit comme jànguñu procédure. Hmm. pénale d' abord détournement de deniers moom amul droit porter plainte parce que nekkul fi état bi état dafa am ju koy représenté te deniers état mooy deniers publics. Hmm. kon moom xamul dara bu fekkee day jaay xam. ah un yow mënoo kenn mën mënu ma sax en tant qu'avocat mënu ma non maître je. on peut dénoncer quand même on peut dénoncer. non il a dit plainte. pour présu détournement ma ne dénonciation hmm? vérificateur la mais procureur plainte la bind. waaw hmm. ah? bu leen jaxase xam na li muy def de pour jaxase bopp kan la porté plainte waxul kan moo war a jël xaalis bi waxul ban compte la dugg xam nga loolu du recel de document. c'est communication. communication politique la doon def. final ce pas pour le procureur.

parce qu'en fait je n'ai pas la date de dépôt mais j'ai l'accusé waaw euh, nga nga vérifier bu fekkee sama accusé baax na ou pas parce que l'accusé c'est le 4 avril le 4 mai 2018 4 mai le 4 mai 2018 le procureur après 8 mois d'investigation mhm. nous mettons à votre disposition les éléments qui pourraient être constitutifs euh, constu, euh, les éléments qui pourraient être euh, constitutifs d'un détournement d'un détournement de deniers publics est portant sur plus de, est portant sur plus de 100 milliards, sur l'ensemble sur l'ensemble des actes posés. Mmh. Toutefois, nous nous limiterons à vous livrer à vous livrer le, détail, de deux d'entre ces actes dits d'acquiescement. un acte portant sur 44 milliards 833 millions 159 000. Mhm. L'autre portant sur 49 millions 950 milliards, 49 milliards 950 ah, millions. Donc en fait. soit un total. il n'y a pas soit un total de 94. C'est de la point final. fii il y a pour moi. c'est de la dénonciation c'est pour moi je me suis arrêté à l'objet l'objet ce n'est pas une plainte c'est une dénonciation parce que une dénonciation c'est dire que sénégalais yi ñu ngi sàcc seen xaalis waaw on l'a toujours fait on est habitué même nous de fait chaque jour ñu nekk place de l'obélisque wala caat nekk fenn wax ko caat sax il va plus loin en disant un non mais là il n'y a pas de non y' a pas de service aussi. non y' a pas non. alors maître El Hadj il faut euh, que dans cette histoire là dafa am fu ñu jëm. Mhm. les sénégalais portent dañu am espoir ci Sonko. Mhm. dañu am espoir ci moom. sénégalais. oui. am na ay ay sénégalais. les sénégalais ñu toj seen bopp yi dañu mhm. am espoir. du sénégalais yëpp dañu d'accord rek. non les sénégalais dañu am espoir ci Sonko. bu ci boole. moi je me suis amusé à l'appeler xale bi xew si jamono. d'accord parce que loolu la c'est un fait. Ino Ino xew na jamono mooy moom mooy la première non non non non maître s'il te plaît non maître ne ma bul ma perturber. mais ñu bëri xew na jamono tax ñu baax. maître mun na bañ a ànd ak. non d'accord xam nga malal xam nga malal noo ko tuddee. waaw cité na cité wul yóbbu nañ xaalisu Sénégal mais. ni nga ko liiree je te donne nga liir nga liir nga liir. non comme Charles, ça Charles je m'adresse Malal. waaw nga lire la plainte. Qui... mais dama lay jox nga lire yow. nga lire sa bopp la plainte day sos. qui est très claire bu boobaa Sénégalais dinañ xam ndax li jox ko mu liir day sos jox ko mu liir. liiral plainte bi. je peux reprendre la parole. du début jusqu'à la fin mayal buuba benn. ah bii vingt-deux août la deux mille dix-sept. voilà comme ça mu tontuwaale. maître maître déposé au niveau du juge d'instruction bi nga xam ndax dossier bi war na mën a leer wala mënul leer. liiral plainte bi dama la ko comme ni nga liiree beneen bi non c'est important c'est très important équilibre mun bi bu bëri dee bële de ah moom na ko lii eh, kañ la kañ bi waxal bi date bi xaar euh, euh, bi ñetti weer après dénonciation la soo def plainte boobu pour se racheter non non non bii c'est Malick j'ai moins c'est 2017 ma gis ci date wala à ah, monsieur le doyen des juges d'instruction. Ah, encore une le tribunal grande instance hors classe de Dakar monsieur Ousmane Sonko expert fiscal député à l'Assemblée nationale demeurant à la cité et cetera mais comment euh, dirais-je élisant domicile l'étude maître Amadou Sow Ibrahima Diawara Cheikh Khoureyssi Ba Abdoulaye Tall Ousseynou Fall Djibril Diagne Bamba Cissé et tous ces avocats à l'honneur de vous dénoncer et vous exposez ce qui suit. waaw xam nga lii aussi dañuy demee. man maa amoon maa demoon parole bi. Abdoulaye su bett na mais expliqué. bon ngeen fexe ba du ma fi benn crédit. 22 22 autant oui non non non autant on a lu la plainte. fii nga génne saa yi saa yi xaw ma. non non maa ngi lii gagnons gagnons du temps. mais sàcc sama temps de parole. di may lire di may lire da nga kontaan. mais dama bëggoon. non di may lire da nga kontaan. mais attends. lii nag ma di temps de problème. non non non bàyyi ko mu. ah mais mais je te promets que dinaa la ko delloo. su ma biir temps de problème léegi maa la ko leb dinaa la ko delloo. su ma biir temps de parole. maître maa la ko leb dinaa la ko delloo. maa dinaa la ko delloo dinaa la fay. sama temps de parole. waaw dinaa la ko fay dinaa la ko fay. dinaa ko lire mais ñu ngi kontaan nag lii lan. am naa question on gagne du temps. Malick Malick que le que le 22 août 2017. les sieurs Mamadou Mamour Diallo. et Maïssa Ndiaye respectivement directeurs des domaines et chefs du bureau des domaines ont désigné avec. ont signé avec monsieur Tahirou Sarr représentant des sociétés Sofico SA et CFI SA mm -hmm. conciliation financière de l'UEMOA deux actes d'acquiescement pour Sofico le montant d'indemnisation de 44 milliards et pour euh, CFI le montant de 49 milliards soit total 94 milliards 177 305 500 que dans les deux actes datés du même jour 2017 Seydou Sarr représentant de l'un moom mooy représente ñaari société yëpp. ñu ñu xaaj montant bi déjà loolu rek sénégalais yi war nañ comprendre. pour l'autre fii mu ne sur la base d'une créance qui aurait été rachetée te li mhm. graaw mooy créance bi dafa dem pour homologuer ko xam nga homologuer bi mooy lan mooy mu am ci droit jël ci xaalis ñu ñu ñu ñu rejeté ko mu defaat appel ñu rejeté ko te pourtant ci créance boobu la basé wu ne pour ñu pour ñu pour ñu rembourser ko donc mu ni cependant aucune expropriation pour cause d'utilité publique n'est intervenue aux dépenses des héritiers euh, Ndoye par l'État et aucune créance n'a existé entre les héritiers de et l'État faute d'expropriation de ces derniers parce que amagul woon mhm. mu sur les délits de faux dafa wax sax de faux mhm. usage de faux reproché à Seydou Sarr Mamadou Mamour Diallo et Maïssa Ndiaye xam nga léegi moom kenn dootul wax tuddul tout donc a question parce que. il question bu beneen question bu damay tëj question tuuti rek bu tuuti. léegi intermédiaire bi. Euh, ki moom entreprise yi ñuy war a fay 46 milliards. Hmm. xaw ma 40 44 milliards. il a dafa dafa jënd créance bi. mais ci kan la ko jëndee. Tahirou Sarr. non dafa dem di jënd créance bi ci famille Ndiaga Ndoye. non non mais famille Ndiaga Ndoye mais famille Ndiaga mais xaaral famille Ndiaga Ndoye moom la Sonko di di doon kii. non non non encore une fois bëgg naa mu leer défendre ko famille Ndiaga Ndoye. non ñoom la doon ñoom la doon. conseiller conseiller. ñoom la rencontré woon. waaw léegi am naa une question. moom la 10 pour cent non mais la question mooy. moom la 10 pour cent léegi est-ce que yéen xam ngeen. est-ce que yéen xam ngeen ñaata la ki jënd créance bi ñaata la ko jëndee. ci famille ah deux milliards deux milliards ah, déglu rek. non dama laajte rek waaw déglu ma wax la rek. dem leen jot nañ deux milliards cinq cent yi. xam nga ce qui s'est passé mooy bi affaire bi di am benn partie famille bi dañoo nangu benn partie famille bi bañ. loolu nañ ko wax mu leer. Hmm. mais le problème mooy cette cré cette créance là n'existe pas pourquoi. Hmm. parce que pour mu exister. foog ñu valider ko te tribunal daf ko bañ a valider. Hmm. mu def at appel ñu rejeter ko donc sur quelle base l' état a payé jusqu'à dire que j'ai payé 3 milliards 500. Hmm. nañ wax sénégalais yi dëgg. alors c' est hmm. ah appel bi Tahirou Sarr moo bi déjà ki ñu wax dëgg jamais. Tahirou Sarr a gagné Tahirou moo gagné bi. Malick kan moo gagné génne preuve bi. non nga ne Tahirou Sarr moo gañ appel. waaw waxal ba da ngay wax lu dul dëgg nii may naa la preuve bi comme ni nii. da nga doon ma jox la preuve bàyyi di wax lu dul dëgg. avec moi ça ne marche pas léegi nag. oui Bouba. maître yow la ñuy jeexalee de. bëgg a leeralal. oui de Dakar. moo arbitré affaire bi 147 la woon. oui avec l' état. mu ne leen eh état mënul fay lii yëpp. damay mbës fii 40 nangam fii 40 nangam ñu daje bi 94 ñaari ñu nangu loolu yàgg na ñu nekk ci affaire boobu. ñenn ñoo nangu. héritier yi nangu lan nangu 94 milliards yi. astaghfirullah. ñu nangu 94 milliards yi. jamais moo tax ñu bàyyi ko bi 94 milliards léegi moo tax Sonko bi bi mu ñëwee di def intermédiaire te amu ci droit ba yàgg am naa ci bi bi nee na amu ci droit ba yàgg mu ne am naa ci droit benn loi ayewu ko. dëgg ba pare mu signé. intermédiation bi demandé ci 12 pour cent muy 11 milliards 200 quelques millions ma ne ko ci film bi. fan la ko signé. mu ngi nii Edouard Thiaw si bari. wala da doon liggéeyal gratuitement donc les héritiers. jox ma jox ma feuille de présence baa ngi nii dossier bi. ok ah ok voilà merci beaucoup. ok ok c'est bon à dire. may ma ma lire may ma ma lire may ma feuille de présence. bu ma doon bu ma doon vraiment lu am. sama biir temps s'il te plaît vraiment da ngay saboté Malick Malick may ko mu yeggal je te promets je voulais fermer avec lui mais dinaa la jox ko dama ni feuille de ko Pape Djibril réunion affaire TF 1450 avec le cabinet Atlas membre de la famille héritière prénom Amadou Cissé Yéri Diakhaté Massène Sarr Momar Faye Saliou Ndiaye Abdoul Mbengue Djibril Diallo Ousmane Sonko Isma Ismaïla Ba affaire baa ngi nii. waaw léegi loo ci wax liste de présence. léegi léegi nous sommes le 6 août. 6 août. waaw 2018. avant loolu protocole d'accord baa ngi nii atras. mooy bi ne trace groupe mais man xam nga ban problème li ci trace kay wala mais xam nga ban problème moom la mais xam nga honoraire honoraire xam nga non xam nga moo grave honoraire dans ce problème là xam nga honoraire xam nga lan moo grave xam ah. nga lan moo grave mooy li ma njëkkoon pour dama ne bu fekkee ne Sénégal moo ko tax a jóg taxu koo jóg non man lii raison waaye xaas lay wër dégguma honoraire honoraire mu ne mu ne les héritiers mooy ñi doon suuf si s'engage à rémunérer le cabinet Atlas sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12%, hors taxe, retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement ou indirectement par le cabinet Atlas. Mhm. ñu signé léegi mu ne Atlas groupe parce que tiit na parce que signé na Atlas fii Mercalex mu ne moom ko ci Mercalex même chose lay signé même chose ba naa ko génnee. Mhm. ba pare li gën a garaaw pour wane Sonko koo gëm mooy xamuloo dara. confidentialité ci biir ci biir clause yi mu ne chacune des parties s'engage à conserver confidentiel tout document ou information échangée ou communiquée dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord mais maître on peut tomber d'accord pour ça même Charles même ne fu mu toll nee na transparent lay wote mhm. fu mu toll nee na fer war a leer dafa war a leer bu dee dafa dem ci ay ay ay ay ay ay ay lébu yu awul ak xaalis war leen tibb onze milliards moom kenn rek def ci poosam mu ne nag affaire boobu bu ko kenn wane. pour wane moom yor transparence léegi nag ma ñëw nag ci àll kalaj maître daaneelal ci àll kalaj bi kon parce que temps bi jeex na te moom tamit. dama bëgg dama bëgg ñu ñëpp ñu xam ne am nañ xel. Hmm. ñun ñëpp am xel. procureur. yàlla mooy mooy mooy Karim la waxoon ne bu ko ooyee mën na ko preuve yi ki nga defee pétrole bi ñëw fi ñoom Aliou Sall procureur oo ko mu ne du wujj procureur du président de la république parce que procureur nee na du procureur de la république procureur du président la kon moom du dem di déposer foofu te pourtant fàttewu na ne waxoon nañu ni dama ni rek procureur oo ba rek ba joxe preuve yi ma ne vraiment foofu laa bëgg tëralee mbir mi oui mu jeex vraiment Sénégal yëpp lay laaj li mu wax lu dëgg recel document amul ci ni compte CBAO bu neex sax bu joxe numéro bi la ko versé banque bi CBAO la tudd bi sàngam recel document bi 46 milliards yi wàcc versé ko le 25 février à Ecobank ana recel document ñu ne vérifié ji ko et puis journaliste yi laay waxal bii paas sama xarit yi. <laughs> oh mais mais bëgg nga ñu ci boole seen déontologie li mu leen may. foofu laay tribunal ak plainte bi ñaar yooyu la bu jeex. dafa leen a ñëw wax ne waxoon naa ko au départ. ku leen ni lii lu xam nga le directeur de publication est désigné comme auteur principal en cas de diffamation ndax ci journalam lañ génne lu jommee yàq deru nit kon ki ko bind ot dañu def ko complice mm-hmm. kon boobu mu nekkoon Mamour jàll journaux yëpp rajo yëpp te condamné nañ leen ndax ku ci nekk bind na alors que même moom bi muy bind procureur ñëwul tudd Mamour Diallo da waxul dëgg ñëwul tudd titre foncier bi nekku ci tudd fi héritiers yi lébu yi nekkuñu ci toujours service de domaines nekku ci waxul service bi pay trésor a fay wala kenn nekku ci yëpp yëpp yëpp yëpp dara du ci dëgg barke alxuraan léegi nag léegi ci service non mais plainte bi dama terminé bi dama bëgg géntul li ma wax dama ne Mamour Diallo dina déposer plainte hmm. bu ñëpp xam ne commission d'enquête bu commencé parlementaire justice day bloqué jeex na léegi nag ma ne leen plénière bi bu ñëwee ba entériser les travaux de la commission. immédiatement man a laaj Diouf. maay déposer plainte bi d'ailleurs pour mu gën a neex. man proposé naa Maama tey tey laa ko proposé dinañ ci waxtaan ci weekend bi que est-ce que duñu comme léegi plénière bi ñëw léegi octobre jot. assemblée ubbi ñu gaaw déposé plainte bi je ne cache pas de secret. parce que mën naa ko déposé tey ci guddi mhm. ba yóbbu ko loolu pour mu bañ euh, parce que dafa yomb. Mhm. sos. Mhm. nar wax dëgg. boo ko mënee kii yéen wax ñu naan El en tant que mag Abdoulaye yaakaar Sénégal gi te loo wax du dëgg. ba pare ah. ñu ne wax ñu compte bancaire bi rek ñu daan recel ba document. wax ñu kañ lañ fa biiree xaalis bi. maître du kon ñu loo ko wax. kon pare ngeen def plante mais jël Sénégal yi daf leen ay xar. am na nangoo nekk ay xar nañ li nga doon wax El Hadj ah, Malick lu waaye nangu teg ko dagan la solution la solution d'accord ngeen ci te moom nee na fa la ñu jëm. mais mais pare wu c'est aller devant la justice. Ablaye je termine avec les journalistes. ci laa waxoon dama ko su ko la avec les journalistes journalistes yi dugal nañ dugal nañ générique bi. mais je termine avec les journalistes Ablaye après mu wax waaye journalistes yi dama leen di ñaan. Hmm? dama doon affaire diffamation ak l'auteur principal de la diffamation c'est le directeur de publication. Hmm? maître xam nañ ko. mais ma rek foofu. kon ñun buñ ci waxee man ngir yàlla ngir yàlla yéen journaliste yi yéen journaliste yi nekk relais Sonko bu dee am na cër bu mu leen jox bu dee ngeen ngeen ay foo kaayam xanaa dana leen wax jox dëgg la source xanaa li ñuy wax la ah la vérification de la source. Mhm. xanaa dina may ngeen gis. maître comprendre nañ. te ci plainte bi mu wax ni euh, barki démb la ko déposé. Mhm. bi mu xamee ne commission d'enquête pare nañ. Mhm. xam ne man danaa ko porter plainte pour mu yéegal mbir mi buy jaayee muus ci njëkkalante ci. allez allez allez maître je je xoolal Malick générique bi dugg mais. je te donne je te je termine avec je suis désolé. ma sa porter plainte. Mm-hmm. ah bon li gën a mm-hmm. du porter plainte mooy une mauvaise foi boo xam ne kenn mënu ko natt. ce qui le dossier là. c'est archi faux Ousmane Sonko n'a jamais signé un seul protocole d'accord. je le jure devant Dieu. film bi xoolal film bi xoolal film bi xam nga wax ci film bi. li gën a bon ci àdduna mu ne leen man ce n'est ni technique ni juridique mais j'ai des moyens je les tiens. parce que ils ont fait des c'est dangereux te man téye naa leen di nga dugg ci plainte bi. téye naa leen moo tax dañ ko wax sànq nii dama ko wax ne. ba appel ngeen jëpp laa ñaan ngeen xool ngeen xool film bi. c'est pas vrai hmm? Seydou Sarr.

le tribunal grande instance hors classe refuse mu ne Seydou Sarr fera appel mais la chambre civile numéro 2 de la cour d'appel de Dakar confirmera la décision du préjuge benn problème la am émission bi mu commencé ba léegi yaa ngi kii ci portable doo teg non non man xam nga xam nga man indi ma document oui ma indi ma document mais mais quand même j'ai toute la documentation man yi mu yor yi nëpp na ko dajale